mbokk yi nga xam ne yéen a ngi seetaan eh, li ñu leen di bëgg a wan mm, album photo la di album photo boo xam ne nag bu eh, spécial la ndax dañu fee dajale photo yi nga xam ni nit ñi dañu koy faral di wane ci internet maanaam rawatina ci Facebook di wax ni diw la ñu ëpp ci ñi ñuy tudd di tudd photo yooyu nag mooy sëriñ Touba Cheikh Ibrahima Fall sëriñ Saliou Mbacké ak Soxna Jaara Bousso maanaam ñoo ci ëpp am na ci yoo xam ne ñoo ko dugal leer na leen nañ ñi ne du ko ñu wax waaye nag lañ ci jublu mooy saboté ndax gis nit koo xam ne ko ko gis xam ne du kooka mu mel melokaan woo xam ni wax dëgg xam nga ni kooka melu ni eh, bu defee nit ñi la di song duñ ci am benn seetlu rek di bëggee ak ak ak ak ak ak ak partagé ak defee ñoom nag ñu toog di ree rek naan xool leen murid yi ndof gi voilà ñu ci bari ak eh, saboote lañ jublu ak yàq ak bëgg a xooj maanaam wax kenn dootu xam kenn mooy kan lan mooy lan waaw ndax am na jëmm yoo xam ne ku ko ku ko ku ni sëñ Saliou la wala nga ni Cheikh Fall la wala nga ni wala nga ni kenn ci ñu demee ne moom la wax dëgg la bëgg bëgg bëgg bëgg bëgg ñu yàpp kooku wala ñu yàgg ñu ñàkk ko naw moo tax hmm, loolu nag moo tax ñu dajale ko xëy na ñàkkut am xam ne nag ah, ñàkk xam tax voilà ñu ko dajalee nag bëgg eh, hmm, leen ko leeralal mooy ki nga xam ne moom mooy numéro nekk ci kaw ñu ni sëriñ Saliou la kooku du Serigne Saliou mi ngi tudd Serigne Sidi Bousso euh, Guédé moom bàyyi woon bi euh, yàlla na ko saa boroom euh, jéggal yërëm ko dugal ko ci àjjana yi gën a kawe kon kooku moom laar na kon ñoo xam ne kooku du Serigne Saliou mooy numéro un bi ci topp mooy numéro deux bi am ku muuru lu weex muuraay goo xam ne boo ko gisee Euh, liñ ciy jublu mooy walla ni Sëriñ Tuubaa la mu nekk ci néeg bi nga xam ne dañ dañ ko caa tëjoon ca Ndar mu am ay rabbu yoo xam ne dañ koy jàmm mel na ko bëgg a reconstituer loolu nag seet benn waay rek mm, daal di koy muur daal di wut euh, photo boo xam ne ci internet yomb na mu am point yi dégg nga daal ci collé photo ba màggatal ko loolu yomb la yomb la def ci Eh, ci ci internet nga xam ne moom kii ki ko def moom ah bu ci jubluwut lu lu ñaaw itam moom ay fen la ndax lu amut moom kenn du ko jéem a def bu doon sax ñu xam ne kii da ko dessin imagination la waaye photo moom boo ko defee wane ne lii la te fekk dëgg moom mënut a lu baax mukk ci àdduna ndax waa ji moom ko gis bi ne tong ak bu gudd bi mu teen ak ni muuroo nga xam ni ne ne nit ku yiw la nga xam ne loolu yiwut nekkul photo ñaareel ñetteel bi ci topp mooy numéro 3 bi ñu ni soxna jaara bulo la foto eh, bi yaakaar naa ku ko gis nii rek ci saa yi da ngay xam ni mm, ba ki ko photo ba mu koy photo wul woon mag lool waaye nag nit photo bu yiw la bu fekkee ne bu original la xam ne defuñu ko muur ko jublu ci présenté na ko soxna jaara la man benn xam ne ku baax la ku yiw la eh, waaye boo xoolee mm, maanaam at yi nga xam ne moom la mel ni moom la am ci photo yi ko soxna jaara di am ak léegi yaakaar naa boo ko dee seet xam naa téeméeri at juróom-ñaar fukki la dana dana dana dana dana jege waaw te ma jot nag jamono yooyu boobu yaakaar naa ni photo moom loo xam ne lu lu laate la ba ku ñu jot man ko def am na sax koo xam ne ni émettre na benn idée xalaat nag rek la def ne xëy na mën naa doon way juuru sëriñ abu Khadim ndax niru na ko jëmm ak yiw gi waaye nag xalaat rek la loo xam ne lu loo xam ne dañuy dañuy dañuy digal nit ñi ñu jàppaloo la xam ne daal bu fekkee photo bu original la ko yiw la waaye nag bu soxna jaar bu so photo bi ci top di ñentelu photo bi koku goor go xamni goo mm, na ni ci ñi toppoon Cheikh Ibra la bokk ñu ngi tudd Baye Ibra Mbaye e, jamono yi nga xamni lañuy défar kër Serigne abdul Ahad gi diko diko défar da ngay ak muré daan na and ak Baye Ibra Ñaan ñu daan ñew kër Serigne Cheikh Jaxate ndax Baye Ibra Ñaan dafa daan ñew yoron euh, sunu bàjjan sunu ndey fon soxna euh, ya tuti Jaxate ba jugon daana fa ànd ak doon xaritu Baye Ibra Ñaan moomu daana ànd ak Baye Ibra Ñaan di fa ñëw waaye Baye Fall la ñu tudd Baye Ibra Mbay doon doon doon talibu Cheikh Ibra moom it ba ñu xam eh, Cheikh Ibra nuñ ko dëkkalee eh, du Cheikh Ibra bi ci topp di photo bi nga xam ne mooy numéro 5 bi moom itam muy góor goo xam ne dafa ñëw taxaw ñu moomale photo bi eh, Cheikh Ibra waaye kooku du Cheikh Ibra bi ci topp di numéro 6 bi moom dañu ni man Serigne Touba la waaye nag du Serigne Touba euh, Cheikh Sidiya la nee nañu Cheikh Sidiya Baba la ñu noonu ne toog danak ay taalibeem di julli euh, nga gis ca gannaaw euh, toile de fond benn calèche saret bu am ay fas yu bëree bari ay tubaab nekk ca nekk ca gannaaw boo gisee kii mu dandal sax nga xam ne moom moo gën a jege ak yow mi xool boo ko seetloo bu baax rek da ngay xam ni kii euh, maanaam tërëy naar la yor waaye yorul tërëy nit ñuul kon Cheikh Sidé Baba te boo gisee photo bi ñu ngi ci bind ci légende bi euh, ne photo Serigne Touba la ñu génnee ko ci archive préfecture de Nantes France ba noppi daal di cay teg à Torino Centro Torino Centro moom mooy mooy biir Torino te Torino moom dëkk la boo xam ne Turin ko ne xam ne ni Italie la nga xam ne kon euh, incohérence bu bari am na ci bi ci topp nag wax dëgg yàlla moom itam photo bu yéeme la xaw ma ko waaye boo gisee jëmm ji rek da lay niru ne xëy na ko xam ne àndut ak xelam àndut ak sagoom la da lay nirool muy numéro 7 bi ñu di ko moomale Serigne Saliou li moom ku xam Serigne Saliou wala nga mas a gis rek ku xam Serigne Saliou euh, wax la lan la ci moom ñu la ko nga ni Serigne Serigne Saliou la loolu moom wax dëgg yàlla kon euh, amoo xel waaw dafa bokk ci photo yi nga xam ne damaa jàpp ne moom lañ ko dugal ngir saboté euh, yoon wi lañ ko dugal waaye dugaluñ ko sax ngir ngir ngir bëgg bëgg bëgg bëgg yaatal wala barkeel photo bi nga xam ne mooy photo numéro 8 bi am na sama daayira boo xam ne ku ñuy wax Galas Diop daana fa dem ci wetu mbal googu di ko ziyaare bu ñëwee di ma wax ci ay mbiram lu bari war ma photo bi lu eh, bari dañu ni dafa bokkoon ci waa barsàq maanaam ñi nga xam ne waa ñu nekkoon kër Serigne Touba loolu nag moom wax dëgg yàlla mënu ko koo confirmer mënu koo saxal mënu ma koo dindi ndax leeruma waaye li ma leer ba leer ma daal mooy moom du maam aw buso mooy jur suñu fàllu ndax maam aw buso amul photo waaw kon muy numéro huit boobu numéro neuf bi itam eh, xam naa ni jot gi moom mayut ma ma ma ma ma ma yaatal gëstu bi waaye am na ñoo xam ne moom ma leen gisoon wanoon danañ wax kan la ndax photo bi nee nañ ñu ngi ko jëlee kër sëñ Moustapha Ceytu ci Daaru Salaam waaw am na ñoo xam ne bu ma leen ko wanoon xam naa danañ wan kan la ki ko dugal nag daf ni sëñ fàllu la waaye wax dëgg yàlla photo bi moom ko gis eh, xam ni photo tout tànk la boo xam ni eh, ku gis jëmu ji mënut a soppi ko soppi ko soppi ko màgg ba nit di ko gis di ko jaawaleeg Serigne Fallou maanaam loo ko projeté projeté projeté dans le futur mënoo ko jaawale mukk ak Serigne Fallou waaw am na benn sëtu Serigne Fallou bu ma ko wan sax laaj mu xamal ma ni photo bi day mm, photo mbooloo woon waaye dañu ko dagg teqi ko ji rek ni moom Serigne Fallou waaye du Serigne Fallou te loolu wax it yenu na maanaa lool ndax boo xoolee kuy soo jëmmi ji ci biir carte bi nga xam ne photographe professionnel bu doon photo benn nit rek donc du ko du ko positionné nii kon nga xam ne kon loolu kilif googu wax dëgg la waaw muy numéro 9 bi xamu ku mu doon danaa ko saytu gën ko saytu ba xam ko boo xamee dana jafee dootul neex a dolli ci xam naa ñu bind ko rek waaye moom li leer ba leer moom mooy du sëñ Fallu waaw bi ci toppit moom leer na nañ ñi na biñ ko daan dugal di wax ni sëñ ak Cheikh ak ak ñooñam eh, ñi nga xam ne ñooy sëtam ñooy sëti boroom nataal bi te dëkk ci Ngunjaan di waa sëñ tur dama ko fàtte waaye dañ leen di dakkantal ci Kaang ñu sant Jaañ waaw ñoom bindoon nañ leeralal ni photo boobu moom seen foto bu maam la kon boobu kenn mënu koo jaawale waaw muy yi nga xam ni moom lañ fi jotoon a dajale Eh, gun di leen ko leeralal am na photo bu ma mas gis nag boo xam ne dañ ne woon soxna Fat Diala ci taaw Sëriñ bu jigéen waaw may fàttali leen it soxna Fat Dia moom Fati Dia moom di taaw Sëriñ Tuubaa amut photo am na benn photo boo xam ne benn waaye yónnee woon ko bu yàgg boo xam ne moom la ma jàppoon mooy booba xaalis la wut ndax dañ am na photo boo xam ne Sëriñ Tuubaa wanewut kanam dafa dafa muri kanam ko muuruwut ñu wane ko mu toog ci ab pilian ay tubaab euh, tiim ko ab xaj nekk ci wet ga. waaw nga xam ne boo xoolee ba ma xoolee photo ba laa xam ni moom moom mbir mu yéeme la maanaam ndax euh, maanaam du dëgg maanaam kenn du ko gis sax di jaawale ne photo la ab dessin la boo xam ni man mi xam style ki ko dessiné gis photo ba xam naa ni mën naa la ne diw moo ko dessiné. échangé naan daan naan naa ci ak moom peintre la bu nekk Hollande yàgg nañoo wax maa moom ci lu noonu. waaw kon yo booboot gisuma ko fi nekku fi waaye ko ci nga xam ne ci yii la bokk beneen yeneen ñu gisit nag ndax yàqkat yi moom duñ noppi mukk di yàq duñ tayyi duñ sonn waaye nag yow euh, daf di wax rek ne bu sa ala bu la sa bu la sama alal jaralee feebar man sama alal damay jarala dee waaw wala fi sëñ Abdoulaye dinaa naa kuy kuy kuy tooñ du mucc waaye kuy fayu du noppalu ñun nag danoo bugguta noppalu ci liggéey bi ñuy liggéey di ko liggéeyal Sëriñ Tuubaa ak di ko leeralal taalibe yi ba tax na ñi yàq moom bisimilah wax du leen neexee rek bay boo ngeen def li ngeen di def waaye ñu nit bu boobaat leen wóor ni rek waxtu mu mën fekk rek dañ jóg te lépp luñ ci dañ taxaw ba faagaagal seen seen seen jëf yu ñaaw yooyu asalaamaaleykum wa rahmatullah